ndax alxaaji Abdoulaye Niass dayoom ci lislaam dayoom ci xam-xam dayoom ci Sénégal dootul moomeel boo xam ne ñim jur ak ñi askanu ci moom ñoo ko moom mais ci moomeeli Sénégal la bokk la boo xam ne nii mën naa wax ne bu ko Sénégal amutoon Sénégal daf koy uti ndax ñi ko amut ñi ngi ñëw Sénégal di ko ut si waaye nag Euh, liggéey doomi aadama noonu la mel dafa laaj topp dafa laaj gëstu dafa laaj segg dafa laajoon tim loolu yëpp luñ ci bind ñu dellowaat ko ci nit ñi ñu xoolaat ko mais nag comme ñi nga xam ne ñoo saytu liggéey boobu wax nañoo ñoom te nangu nañ njumte boobu te nangu nañ pour defal ko damaa foog ne loolu jarut eh, fitna wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaas alquran na na ngeen teet fitna fitna du jot rek ñi nga xam ne nii ñoo tooñ taarix bi ñu ñoo ko bokk boo yëkkati arab bi wax na ne laysa bi insaanin wala aqilin man laa yaci taarixa fi sadrihi duut sax nit te duut ku xelu koo xam ne nii xamul taarixam wa man rawa axbaar qad mada adaafa amaaran ila umrihi képp koo xam ne nettali nga xam nga taarix yi ñi jiitoon dafa mel ni dangaa jël beneen dund yokk ko ci sa dund kon nag dund bi nga xam ne ñun buñ ko yokkoo ci suñu dund danañ am seetu boo xam ne mën nañ cee seetoo pour xam jullit bu baax mën nañ cee seetoo pour xam citoyen bu baax mën nañ cee seetoo pour xam nit ku baax mën nañ cee seetoo pour xam ñun ñooy ñan démb man cee taxaw pour xam ñun ñooy ñan pour xam fan lañ jëm ëllëg loolu dëgg-dëgg buñ ci juumee njuumte boobu duhut njabooti alxaaji abdullahi rek lañ juum ci seen xàq mais Sénégal moo jum ci xàqam mais Sénégal bu juumee ci xàqam dëpp xam ne moom jum na ci xàqam taxaw pour defar ko xam-xam xam-xam moo koy tontu waaye ay saaga ay xasteeg yooyu ko tontu loolu mooy message bi nga xam ne moom lañ bëggoon mu jàll ñu ànd ak dal Euh, commission bitim tim ñi ngi leen di wax li nga xam ne nii moom lañ waxoon ak ñun ñi ngi xaar di gis jéeg yuñ ci def ndax waxoon nañ ne copie yi nga xam ne nii ñoom mën nañ koo retirer ci bépp barab boo xam ne barabu gëstu la wala ci ambassade yi wala ci barab yi nga xam ne officiel la ñoo ko fa joxe dinañ ko retirer defaraat li nga xam ne mooy li wér te bu laajee sax kër gi ñooy tànn ñi nga xam ne ñooy bind taarix bi loolu yëpp waxtaan nañ ko ak ñoom kon àgg nañ ci foo xam ne ni defe naa ne jaratut ñu oote ay violence ndax jàmmi kenn nekku ci te nañ xalaat ñun ñëpp ne ñiy xeexal lislaam ñu ngi bëgg gis jullit ñi di xeex ci seen biir waaye ñuy xeex tariqa tijaan bi ñu ngi woo gis tariqa bi di xeex ci suñu biir te amuñ euh, soxla ci loolu yëpp amuñ lu ñuy jëriñ ñun kenn ci ñun du jëriñu ci xeex boobu Baye sa dafa waxoon ne ku bugg a noonoo sa bakkan bi ku bugg a xeex xeexal ak sa bakkan bi moom mooy noon bi dëgg-dëgg yal yàlla dimbale yal yàlla def ñii ay jullit dëgg-dëgg yàlla def ñii ay mbokk dëgg-dëgg mbokk yoo xam ne nii dañuy mel ni mbokk war a mel laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du ba te mu bëggalee boppam lam bëggal mbokkam yal nañu yàlla àggale ci loolu waaye ñu ngi fàttaliwaat rek ne njuumte duñ ko fajee njuumte wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu